tax nag kon taqwa pour nit ki am ca la mu ca war a wax am moo di an yakuna rabbaniyan rabbaniyan fi aqwali rabbaniyan fi aqaali rabbaniyan fi tasarrufati moo tax loo cee gis après la mu waxoon mooy ñëw inna lillahi ibadan yatasarrafuuna fi lxalq yatasarrafuuna fi ltabiaa yatasarrafuuna fi kulli cheyin kayfa ma chaau waaw nee na am na ñu yegg ak seen boroom ci liggéey bu sell ak liggéey bu jaar yoon ba lu yàlla bindeti rus nga leen mbindeef bu yàlla am di nga am seen kersa luy dox ci tabixa bi di nga am seen kersa lépp lu ñu mën a fekk même bu dee objet di leen rus xam nga lu tax parce que gis nga buñ lay wax yooyu doo ko comprendre mais da ngay delluwaat ci alquran law anzalna hada alquran ala jabal raaytahu xaashian yàlla nee nit rek lay jox alquran muy bajang bajang yi montagne yi ma bind dañu xam ma ku ci jëloon alquran teg ko ci sa kaw rek dootoo ñi ñemee yëngu ndax xam li ci alquran lan لولاي تخ نك ني ميتريزي القران با يغو فوف روح بوبوت بانيتري سين باس نونو غاي خامي ني نون لا وخه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا نيومي تام نونو لاي ديمي سي سين والا موتاخ سي فوندامنتال xam nga Aliyu ibnu Abi Talib dafa ñëw fekk benn nit muy julli nit ki julli ba noppi mu ni ko li nga julli baaxul parce que toroxlu woo ci sa borom li nga julli baaxul da di génn yar bi ni ko jugal julli waat mu julli wat benen mu ni ko batay baxul def na julli benen mu julli benen ba bu ñettel bi nak mu ni ko ok legi nak baax na mu baye ko ba ali tok ba waxtan wi neex tu mu ni ko nak kay ba wax la Ali mu ni ko gis nga bi ma je julli nga ni mo bax bax mu ni ko mu ni ko baxul bu jëk ba baax parce que boobu la ma wóor ni maa ko defal sama bopp maa ko yéene def ko mais bii ragal sa yar bee tax si naan yi dafa jaaxle mu ni ko yow nee nga ma baax na ba toog fekk xamuloo ni ndeke yar tey laa ikra laa ikra اسمه فضل التسبيح def tesbiix mu ni la doy na ci nga xam tesbiix nu nu mu amee solo ci yàlla mooy juróom-ñaari saar ci alquran yu ci ne yi sabbaxa la ko ubbee yi yu sabbixu la ko ubbee loolu war na la wax nan la tesbiix day ci yàlla waaw te nag wa in min cheyin illa yusabbixu bihamdi walakin la tafqahuna tesbiixahum nee na bu ngeen defee nii yéen rek may defal tasbiix mais li ma am yëpp objet yeeg yëpp insectes yeeg yëpp danañ def seen tasbiix yéen ko dul yëkkat mais amul lu ma bind te du bu waxtu wi jotee mu jox ma li ma moom mu tax yonent bi daan na wax wax bu am solo nee na kalimataani kalimataani xafifataani ala lisaan ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ونقول من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لان ياري بات ياري بات من نديس كي لامي زهبر متدكو آه، من هوايف نكي لامين بر متدكو waye ni mu waye fi ci lammiñ fu mu tudd kon noonu la diisee ci miisaanu yàlla ëllëg tuwaab bi mu am ndax sopp gu yàlla sopp ñaari baat yooyu le mun ñu ko mën a mu nga ni subhaanallahi wa bihamdihi ak subhaanallahi alazim ñaari baat yi ne boo koy wax woyof na du dara mais nee na boo xamul poids bi muy posé ci miisaanu yàlla kon nee na dootoo ko bàyyeeti waxtu wu ne boo amee jot nga di ko wax waaw moo tax mu daan wax استكثروا الباقيات الصالحات التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يننتي بدي لك وحدي لديك برين آه. آه. من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لنا بقى واحد غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر لأن رجلنا وجلي جلي جنة ما باقيات الصالحات إن يدف آه، لأن بقول سبحان الله فنورك نت دف. alhamdulilah fanweer ak ñett def allahu akbar fanweer ak ñett nee na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la nee na nga tëje téeméer bi nag laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nee na bu fekkoon ne déchet déchet lay wax de xoolal géej liñ ciy sànni yëpp ak géej yi ni mu toll lu bon liñ ciy sànni yëpp nee na bu fekkoon ne ni déchets yi ci géej gi yëpp noonu la sa bàkkaar toll nee na baqiyatu saaliha bi dina tax yàlla man la ko baal nee na bu dee laa xawla wala quwata illa billah nag fadlum muy la hawla wala quwata illa billah dawaaun dawaaun min tisaatin wa tisiina daan aysaruha alham نن لا حول ولا قوة إلا بالله يلا نانا نيو جن نيو جا جن نيو كلي مومن موي من نفات جروم نين فوكي فيبارة جروم نين لي جن نيو كلي مومن جروم نين فوكي فيبارة جروم نين من نكو فات موي بتي جن توتي جي يملا بنا موي موي موي جاهلة جاهلة غو خامو غول فوجم واو بمو بريوكيبلا واو fu ma jëm fu ma jëm nee na foofa lay commencé ak yow moom laa xawla wala quwwata illa billah moo tax yeneen ci bi bu dee ci wàllu bismillahi rahmani rahim nee na bépp mbir bu nit di tàmbale lu mu nag lu mu nee bu ko tàmbalee te commencé woo ko bismillahi rahmani rahim bu yeggee na xam ni yiw ga dog nañ ko da cay yiw dog nañ ko kon nag loo mën di def bu dee dangay lekk bu dee da naan bu dee da nelaw lu mu mën a doon dee ko tàmbalee ak bismillahi rahmani waaw parce que la ca yàlla def moo tax waaw xam nga comme ni ma leen waxone démb ni len yalla nee na muñ explosive la sans dépendre puissance bi nee lo bëgg toj rek bu fekké ne puissance su muñ ba yegg na ci nee boko ci ko mu toj ko mais yi yépp loolu la ay lu ñuy la rek lu nga xam ni li bomb yek leneen di def yii yep man nako da ngay xam rek fokay jaar jaar xam rek fokay jaar waaw bi ci dess moy la ilaha illallah la ilaha illallah al alhayla la mu wax la ci ben rek bu gàtt ni la laysa ala ahli la ilaha illallah وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قال له مني أمة محمد يسخو لا إله إلا الله li gën a néew lum leen mën a servir ndax malaaka yu tedd la yàlla yónni mu jël si leen bu ñu duggee bàmmeel duñu ñu weet ndax yàlla dina leen booleeg lu leen di toppatoo lu leen sonal duñ ko fa fekk bu ñuy dekk it maanaam génn bàmmeel ba di tamit du ndax du weet ndax dana am yay malaaka yuy ñëw pour jël si leen pour gunge leen lu war ci seen formalité mu defal leen nee na maa ngay xool yonent ci bay wax de maa ngay xool na ñuy fëggatoo di fëggatu génn ci bàmmeel bi di fëggatu di def nii seen bopp yi naan waaye poussière bi waaye waaye nee na wëlbatiku nag ni borom bi ñu ngi lay sant san ndax benn tiis benn jaxle gisuñu ko yàlla nee na ñett saxoo la ilaha illallah loolu moo gën a néew ci lu mu leen di servi ñenn bi ci des nag mooy di la wax bu dee ci wàllu alquran comme wax na la yi ci aju daf lay ñaan bu fekkee ni bëgg nga ko jariñoo nee yii mu bañ la raw bu jëkk bi mooy su suuratul fatiha yàlla nee suuratul fatiha nee na mooy saar bi ma bi ma séddoog jaam yi dañu am moitié ma am moitié mak ñomako seddo neena buñu bit buñu ne bismillahir rahmanir rahim neena ma jël neena ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin ma jox leen ñu jël ñu ne arrahmanir rahim maliki yawmiddin neena ma jël ñu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nastain neena ñu jël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 nee na ba ca des mooy suuratu yaasin di ko jàng nee ku koy faral di jàng boo amee sa soxla mu tëreg seetaatal sa bopp waaye kuy faral di jàng suuratu yaasin yàlla dina la suturaal loo bëgg a faj yàlla ubbil la bunt yi ñu ne ko ak ban mu ni suuratu rahmaan nee bu alxuraan doon am seet nee na ma ni suuratu rahman mooy seet bi ku bëgg seet nag yaay seet waaw <laughs> laay ndeysaan waxin la rek xam nga seet dafa neex waaw ah jigéen ñi waaw léegi ñu ne damay wax nit ñi ñëw ñëwut ñaareel ak ñett waaw ndeysaan mu ni moo tax nag ku bëgg seet ci sa boroom waxin la حور عين أمج كأمثال اللؤلؤ المكنون أمرنا آه، يا أخي كان كي سيد كيكو كوزون لرحمن نجي تحط أوكي وإمام مودو بقول nee na bi ci des mooy suuratul waaqia waaw nee na doo gis ci àdduna mukk lu la jaaxal wala lu la jommal du am suuratul waaqia nga di ko jàng guddi lu la jaaxal wala lu la nga ni ñu ne jommi nga du am sa njaboot sax mën nañu dugaale ci biir waaw waaw ba ca des muy axirul xashr waaw nee na axirul ku ko jàngoon guddi rek ba noppi yàlla jël sa bakkan nee na baya boo nga xam ne aljanna ngay fanaani kuko jàng bëccëg gi yàlla jël sa bakkan ci bëccëg gi neena baye bo nga xamni ne janta nga lay soye jàll janna moy li ñu wax waxoon law anzalna hada alquran ala jabal la raaytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka alamthalu nadribuha lin nas laallahum yatafakkarun huwa allahu alladi la ilaha illa huwa alimu algaybi walshahada huwa arrahmanu arrahim هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم mais بلا ممكن ان بيسانس كبوليكوك boole kook cheikh الكرسي parce que ما kursi yi mooy cheikh am waaw ku bëgg faj bi metti sax jëlal ñaari aay yooyu waaw ba am ay migraine ak yu kenn xamul del jël ñaar yooyu waaw aaxirul xashr boole kook ayatul kursi waaw nee na ak inna anzalnahu fi laylatil qadr nee na moom rek ku ko jàng ba boo nga jàpp ni kaaru alxuraan jàng nga ko moom inna anzalnahu rek waaw وتنيت آيات يوي دلن بن دي فاتي سورة القدر إن أنزلناه سورة قريش ديلا في قريش أك سورة الشرح ولم نشرح لك صدرك نيتي دوين لوني واو نينا كو جانغ نك الاخلاص قل هو الله احد نينا بكار مانوتو لا kuy def bis bu nekk nga jang l'ikhlas téeméeri yoon bàkkaar mënatulaa tak ay une seule condition <laughs> ñent sa yoon bañ tané del bi del bi del bi <laughs> okay del bi jamur bi del bi del bu bi moy deretu bu ko tour beneen deel bi mooy dërëmu jaamur dërëmu jaamur bu ko jël te joxu la ko bu ñetteel bi mooy deru jaamur bu ca teg lu jaatuwul waaw ne ku ñetti yi ku ko sauvegarde ba noppi ak yi yàlla araamal yi mel ni sàngara mooy bu ñeenteel bi nee na boo ko wattoo tey def lixlaas téeméer bu ne bëccëg nee na bakkaar mënatu laa fenn waaw ba ca des nag nee na faf nag boo ko booleetee moom li xilaas ak falaq ak naas yi nee na fu la neex demal jeex na waaye nag sang ba nee na def leen ko mais bu ma bokkul ci yëf yi bu ma bokkul ci jere ji ma ko bujj suuf moo tax salaatu ala nabi soog a ñëw waaw waaw mu ni addibu awlaadakum ala thalaati xisaali xubbi nabiyikum wa xubbi ahli baytihi wa qiraati alquran ndeysaan nee na seen doom yi lu ngeen sàggan sàggan na ngeen leen tàmmal ñett ñu ne ko lan mun na ngeen fexe ba ñu teel a sopp yonent bi ñu ne ko ak ban mu ne fexe leen ba ñu sopp ahlul bayt ahlul bayt nag paasewul yonent bi la hmm? ali ibnu abi talib fatima hasan husayn juróom yi la waaw na nga sopp leen ba ca des nag mooy nga teel leen mii na ñu sopp jàngal Qur'an ñoom xale yi waaw lu tax benn bis Omar ibn al-Khattab dafa ñëw ci bi ni ko ah, sang bi naa ah, mu ni ko daal adduna bi yëpp yëpp yëpp ba ci sama ndey ak sama baay ku dul sama bopp rek yaa ma la gënal yonent bi ni ko kon demagoo fenn ni ko ba ci sama ndey ak sama baay ku dul sama bopp parce que nag sama bopp bu ma la gënal du bañ naa la mu ne ko kon dema ko fen mu ne ko balaa ko yàlla nangu rek ma gënal la sa lépp ba ci sa bopp nag la yonent bi di teeral rek aaya ba wàcc annabiyu awla bil muminina min anfusihim xam na koo xam ne boo xamee dëgg xam ni moo la gën a yey ci sa bopp waaw kon nag bu jinne soxlaa daqaar ku yéeg daal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 عليكم السلام نجا نعم، دستري نجا نعم، واكري نجا نعم، دفكتوني سافا بيان الحمد لله بارك الله عليكم السلام اوكي اها دونين كو ان سين بنين ميكروفون دونين كو اوكي اما صح دانك لك دانك دانك ok ok waaw waaw moom bu ma maa bu ndeysaan maa ngi koy xàmme ndeysaan waaw mhm. pour dem ban heure la dix heures waaw après midi am waaw ah, d'accord après après mën dem hmm? ok mhm. sëriñ bi gannaaw bu ñu la nuyoo mhm. jéggula la balu la ak kaddu yu ya may mhm. yëkkati sa njabootu al mutarsidin wal mutarsidaat ñoo mhm. concerté woon fële ca Tusbar mhm. ñaan ma ne bu la yàlla indee ba nga sànni leen kaddu yu nga leen di sànni ba pare bala ngeen a ñaanal bala nga leen a ñaanal ñu ngi ñaan ci sa barke sa bay ko ñoom ñu ne naa la wax ne ñu ngi lay sant ne ñu nga ji nga jéggal leen ñu teg ko ci rek ci wa amma bi ni ma terab bi ka faa gis ak li arab yi wax ne a sukru sukraani wallaahi wa bi tahadusi bi lisaani wallaahi te wal awal ablaqu min saanihima wallaahi ndeysaan nee nañu ñoom foofu rek lañ ko teg uh-huh. nee na mënuñu la fay uh-huh. waaye yal na la yàlla fay ndam loo bëgg uh-huh. ci sa maam ak ci sa wayjur mm-hmm. ak bokk yi nga ko bokkal mm-hmm. yalla na yalla def lu ëpp li nga ci yaakaar fa tabarakallahu mm-hmm. te itam ñoom ñu lay xamal ni li nga leen wax barki demb ak barkati demb yëpp dégg nañ ko neena biñ ci gëna retini moy rabiatul adawiya neena ñu ngi lay xamal ni lu adina yag yag yow lañuy ñuy déglu duñu la jëndee kenn duñu ñu sa kaddu benn kaddu loo joxoñ ñu dog loo tere ñu bàyyi ñoom ñëpp ci ànd nee nañu nag mënuñu la wax leneen lu paase jazakum laahu xayra atala laahu umrak wa sabat aqdam moom day kaddu yi tabarakallah waaye dafa mel ni rek li ñuy wax min kay layk waaw joxuma leen nag lu ngeen moomul waaw li ma leen jox yëpp yéen a ko moom ndax it ku jaayanteeg yàlla dafa am lu tax nga jaayanteeg moom ñun ñi ñëpp si yit cheikh ba mu ñuy téye gedduloo ñu lépp dafa bëggoon ndono li ci kër gi ñu jël ko ñu nit lu ci Cheikh El Hadj Malick defoon ba xëy wàcc sëriñ Babacar si def ko ba xëy wàcc ñu ñu bàyyi fii def ko tey tabarakallahu yàlla ngi leen fii bàyyi ñu nit am nañ ñu ñu tollool kon nag ñu nit ñu def ci suñu wàll dama xamul ndax yéen yéen a ma war gërëm wala man maa leen war gërëm waaw waaw waaw xam nga lu tax فقد رحنا لنقول فقد كنت أدعوك أو كنت تدعوني إليك فهل ناجيت إياك أم ناجيت إياي واو لولو ريك موتي نك باتخنا لين دون واخ لغي مالي ولي نو خنا مايت بغنا يو بغنا لو باخ te foog naa ni lii lu baax nag ci li ma ci def gisuma ci lu ma ci taneel bii ah kon nag li ma leen defal moom ma ko yàllaa ko moom yonent bee ko moom kon nag ñun ñu jël leen ko jox leen ko ngeen di ay jullit pour jariñoo ko yàllaa leen ko yéene rek waaw waaye nag ñu ngi sant yàlla bi mu ñu boolee ci ñi am yéene bi pour def ko waaw loolu ñu ciy sant yàlla waaye tax na kon nag lépp lu ngeen ci ñaan ci yiw rek yal nañ ko yàlla boole yal nañu yàlla defal leer yal nañu yàlla defal barke yal nañu yàlla defal sutura bu ko defee rek noonu la noonu la suñ Habib daf ci ñaanoon rek ñaan boobu rek mooy dellu si tey la mu mas ñaan coono bii nga di ko daj ñi ngi ko bokkal ñëpp di ko dajandoog ñoom bis bu ñuy demee ba yàlla may ñu fa ca cëppaandaw jëj di yegg yal na yàlla def sutura rek boo geesoo koo ko bokkaloon nga yam nga mu topp sa gannaaw waaw mu mel ni boobu rek la ñuy ñaan yal nañu yàlla boole yëpp ba fu ñu jëm fu ñu jëm topp suñu gannaaw ñi ñu ko yàlla booleel ci ay kilifa fu ñu jëm rek ñu ko bokkal ñëpp rek bu ñu geesoo rek gis ni ñëpp ñëw nañu la ko yàlla mottali ñu ngi fi am nag comme ni ñu leen ko daan waxee sëriñ Habib mu ngi toog ak ay bokkam فتبارك الله شيخ الحاج مالك مونغي توك عبد الرحمن غيني ات سانغ يو باخ ييغا خامني نيوك نونا بوك ليب تبارك الله جيل سين ييتي ييب اك سين جوم ييب نيوم ايتام خامني دانيو ام ندونو ندونو بوبو ني فاتي فورماسيون يي نيو ام اك ييب ام نانكو اي خامني بي موي سين بوس موتاخ فو يو ني نيوك نيوم نيوكو بوك وا ديفي كون نك نيو nuyu len ñu sargal len sunu bayu bop mo ngi tok mam Ousmane si bu sam mam Abdou Aziz mo ngi ni tok deug yalla ñew tok ngir yalla ak xam ni lii ndonu kër gi waaw ndono kër gi moo mu ñew tok fi ngir yalla pour wan len ni lek mok yéen yeenako bok nak ñu ko nuyu ci sen tour di ñaan moom itam ci barke mag ñi li ñu yéene ci yiw ak barke ak leer yal na ko yàlla mottali wa tabaarakallahu sànq bi ñoo julli sunu wëllëre bopp di rakku tanoor jang fii la julli ak ñun naa fii la wa dafa amoon euh, rendez moo tax mu julli ba noppi wax ni mu ngay daw dafa bëgg jëlaat rendez pour ñëw ndax it lii ñuy def yépp ñoom ci lañu bokk parce que kenn gën leen bëgg lu baax fii la toogoon mook sëriñ Habib ba tax na kon nag moom itam ñu delloo ko nuyoo boobu te seedeel leen ko gis ngeen démb itam sunu mbokk Seydina Issa Laye nga xam ne moo nekk directeur hôpital Le Dantec fii la toog ak ñun ba góor bi jeex fa tabarakallahu ñeneen a ngi ci biir nag ñoo xam ni tey fa tabarakallahu buñ leen waxee fa ñu ne waaye tey ñu ngi ci seen biir li ngeen bëgg rek la ñu bëgg soo tolloo nag duñ leen cité ndax àdduna ni mu demee rek la deme waaw waaye li ngeen bëgg rek la ñu bëgg ci baax ak yiw kon nag baax googu ak yiw googu yàlla na ko yàlla motteel ñun ñëpp ñu jëriñoo ko lii rek la du leneen Moustarchidine du leneen lii rek la yàlla yonent bi yiw baax du leneen ku ko bëgg ñëwal ñu ànd ko yow ku bëgg leneen lu dul ñeenti yi nag ba yóbbu nga seet ko feneen mais ñun liyee ñu yitteel waaw lii rek la waaw tax na kon nag ñu ngi gërëm itam il faut dire la vérité ba tey ñu ngi gërëm sunu wëllëre Tanor parce que moo joxe les instructions pour que lépp lu ñuy def ci programme ñoom nañu ko taxawu lu ca war nañu ko def waaw yëpp joxe des instructions partout pour que ñu di ñu faciliter lépp mais nag dafa xam nit leneen newu fi waaw ndax ñun rek lañ ko mën séqal mënuñu ko séqal keneen ngir yàlla ak sunu kilifa ga fële ca ruq ba waaw ndax na it nangu na koy def na ko wa tabarakallahu kon nag ñu seede leen loolu ah, wax dëgg yàlla jamono bu ne jamono bu ne jamono bi mu ngi nemmiku mu ngi laaj fu ngeen toll fa tabarakallahu lan ngeen soxla lan ngeen bëgg a def nangam yëpp ci cadre activité passé wul loolu waaw tax na kon tabarakallahu euh, tey ci bëccëg la mujj yónnee

ñi nga xam ni yore daf ko téléphoné xale bi dem pour waxi len ñu délivrer len à la minute autorisation bi pour ñu def yi ñu wara def yooyu yëpp itam ci reconnaissance bi rek la dugg du leneen loolu ñu wax len ko rek ngeen bàyyi ci xel kon nak laylatul qadr bi inshallah talata la bu soobé yàlla ñu defe ko fofu ci bayal bi inshallah ak sang yi ñu ko wara bokkal yëpp tabarakallah li ci des itam moy

bu ñoo def fii avec orchestre bi ñu daan defal ci cadre mouvement bi képp koo xam ne am nga jot pour ñëw ci invité nañ la nga ñëw fekk ko incha allah bi ci des nag moo di ñun ñëpp ñun ñëpp sët yeeg jarbaat yeeg ñëpp ñoo ànd nag ñu gërëm suñu euh, maamu euh, bàjjanu euh, nijaayu bopp waaye di frère aussi di Serigne Babacar Kane ak Moustapha Dem bii mu àndal tabaarakallahu ci seen wàllu yitteeg wàllu taxawaay lépp lu ñu nekk rek ñu nga ca ak ñun xeebuñu dara lu ne ñu def ci seen njom taxawu ko waaye loolu it lañu war def mënuñu def leneen parce que Hadj Ousmane Kane ku ko xamni li rek mo man nekk kon nak ñu ngi ko sant waye di ko sant moom itam Moustapha wa tabarakallah di sant suñu collège père collège mère maire sant itam tous les responsables du mouvement sant sous-commission et centre cellules mais nous ba may ñu ñu motion spéciale pour les sous-commission euh, sous-commission pour formation religieuse ak sous-commission pour technique mais aussi ak sous-commission pour organisation Wa, wa, wa. waaw ak sama bokki bopp yi de boobu ngeen baal ma ma féetewoo leen mooy la sécurité waaw waaw ñoom itam fa tabarakallahu seen yitte seen taxawaay ñëpp

ku nekk rek euh, boo amee jot bu la neexee nga jaar yu bari nag dinañ leen ko wan yu bari yu bari yu bari yu nga xam ni di ngeen xam évolution bi l'islam bi def ak fi mu jaar ak yi ci aju di ngeen gis yu bare bare bare bare yu doy waar yu nga xam ni sax li ci nit ñi gis bariwul waaw incha allah kon nag ñu yëgal leen ko noonu ngeen baal ñu àq ci biir ak ci biti waxoon naa leen keroog nii

photo yu original yu doy war ak yenen wa ci la yaaw kay ndeysaan yoyu yep nak ñu bëgg ko def inshallah ay yu ñu leen doon jox la comme ay information mais it mu am benn motion bu nga xam ni moom la ñu mujje xëy na dañu jàpp ni moom la ñu waroon jëkki mais moom la ñuy mujje ndax moo gën a am solo mooy ñi ñu bokkal cité bi ñi ñu bokkal cité bi ñu ngi nii toog seen soxna yaa nga ne toog ci gannaaw mënoon nañu di def lu mel nii ñu nii bon cité bi ay nit a fi dëkk mën naa am li ñuy def dina leen gêner mais waxuma la ni gêner wu leen mais lu ñuy def ñoog ñu na ko bokk dañuy xëy di liggéey mais bis bu nekk ñoog ñu ñoo fiy toog ba 11h 11h30 ñoom ñëpp ñu ngi ñuy toog seeni soxna yaa nga ci gannaaw. lu mel noonu nag boo amee man mi dëkk ak ñoom te xam seen yitte ak seen taxawaay bi ci gën a yéeme ba yéeme mooy ba koor gi commencé ba léegi njaboot yi fi ñëw yëpp ñoom ñii dañ leen a séddoo ku ne jël groupe yóbbu sa kër ni leen dee leen fi ndogo waaw ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu ba tax na kon nag loolu yi jar na sant yal na sant san kenn ci ñoom ci yitte bi mu ma gisee may expliqué keroog di jël affaire yi def nii mu gis ni may def nii mu metti ko moo jënd appareil boobu am infrarouge bi ni ma moo gën yomb pour nga man di expliquer ay sant nag loolu yëpp jar na sant bu ko defee ñaan yi ma leen doon wax yëpp nag maanaam dañ leen jox rek ci cadre alquran mais ñaan yëpp nag lu ngeen ci soxla mu ngi nii léegi wax naa waa formation religieuse ñu multiplier ko def ko yu bari lu ci waaye soxla mu jëlal ko boppam maanaam yii ñaan bokkul ak yi ma leen doon wax yii moo lay wane ni liñ naan vingt quatre heures sur vingt loolu lañ lay wan fi yonent bi dundam yépp minute bu ne lu muy def ban ñaan la cay ñaan bu dee lekk bu dee naan bu dee euh, nelaw bu dee jaamu yàlla bu dee sol mbubb même bu dee mbubb mu bees bu dee luñ ko jox muy soog a ñor tàndarma bu bees sax mu war koo lekk bu dee seenu weer yooyu yëpp lépp ci dund jullit lépp mu ci war a dugg rek la mu ca war a ñaan moom lañ leen booleel fii bu ko defee waxna len ñom ñoom bu ñu def ko ay photocopie yu bari lu ci way soxla mu laaj len ko ñu jox la ko inshallah man kon gën ngeen ñu wax guddi na ba noppi loolu rek la bëggon sànni inshallah ok ha yàlla baxna yàlla baxna inshallah ah ngeen bàyyi xel nak ni waaw waaye ngeen bàyyi xel ni suñu mbokk Mauritanie xam ngeen ni set lu ngeen bobu ba legui ni

يالا دينا في تخو جي دينا تا سا لوخو دو تي ген موم بي موم كو واخ كيرو وا موي كيرو بي نيو ديفي كور بي تيافير يونيفرسيتي مو باري ندسان بيت ني تام واخ كو واو با تخ نا موميت نيو كو سانت باسكو نيو بروب لي تبارك الله كيرو نيوم سي سن بوب نيوم نوي سونو غان man ma len waron inviter ndogo mais ñom ak consul be tout ñu inviter man ndogo waxtan bu yaatu am solo ci walu diine rek ak bëgg diine dox ak collaboration boo am solo loolu it jar na sant nag ñu santi leen ci seen tur yeen wa tabarakallahu ñaanal leen yàlla ñoo it mission bi ñu ne yàlla nañ ci am ndam lan la ko yàlla def kon nag barakallahu fiikum loolu rek lañ doon sànni ci ay kàddu ok ah, ana mu ana ñu ah. surtout jàng fatiha ak salaatu ala nabi waaye itam ñu bañ fàtte ni suñu bàyyu bopp góor gi musaa Ñang bu dayratul kiram mu ngi ni toog ci sunu biir ah, nag loolu it dafa am solo ñu wax ko nit ñi pour ñu yëg ni wax dëgg yàlla ñëw nañu fi itam pour que mu bokk ak ñun jataay bi ak yiw bi yàlla yàlla mottali kon nag ñu def ñaan bi incha allah waaw allah allah allah ngeen toog ngeen toog ñu ngi leen di fàttali ngeen toog may góor gi tuuti ba mu ba mu génn rek ngeen baal ñu ñu ngi leen di fàttali ngeen toog ngeen toog may tuuti góor gi ba mu génn ak kilifa yi suba incha allah 10 heures le programme mu kade yi di commencé 10 heures incha allah programme kat yi di commencé ndey siis nga ñëw fii wuyu ndey siis